dana jooy sëñ Fallu moo gën ba tey ak Touba Média ñi ngi wéyal suñu liggéey tey nag ñu ngi fii si seedoo bi kenn koo xam ne moo fi nekk yor liggéey bi sëñ bi maa ngi lay waaw ah, ah, taxaw yaa nekk fii yow nekk fii. Ah, waaw waaw man maa fi nekk waaw. macha allah noo koy dundee ak liggéey bi. waaw waaw di si taxaw rek di lépp rek ngir maanaam dëkk bi mu gën a taaral dëkk bi daal. moo tax euh, lu mel ni comme xeeti événement yi euh, Kazu Rajab màggal wala gàmmu xeet yooyu weeru koor moo tax ñu def ko fi lépp événement boo xam ni mbooloo mi day génn rek ngir mën a taaral dëkk bi daal. taaru na bu ñu nee euh, Kazu Rajab xel yëpp xam ne sëñ Fall moo woote tey lan ngay wax ci màggal gi. waa gën a santaat bu baax a baax ndax bis bi moom yaakaar naa ni moom bisul sëñ Fallou la ndax lu mel ni yombut waaw fu ne la nit bàyyi ko ñëw. mbolo mi bari na magal gi machallah gis nga nim demé demee waaw rek ngir delo ñukal sëñ fallu motax ñun ñu jël suñu ñun jug taxawu taxawaay bu rafet bi lepp ngir ngir gan ñi képp koo xam ne nga rek mëna a gisaat loo xam ne nii ko mëna yobale waaw. waaw macha nañ comme deg nga ni ko waxe señ bi kontaan nañ ci lan nga wax Touba media TV. waaw di gën rafet lu seen liggéey bu baaxa baax seen taxaway vraiment li ngeen di liggéey rafet na ñepp kontaan nañ ci yeen waaw liggéey waaw macha allah kontaan nañ ñu ngi lay ñaanal jàmm si ju bëree bëri ak màggalu jàmm ak salaam. amiin amiin waaw amiin ñu bokk lépp. macha allah kontaan nañu ak Touba Média TV nee naa leen dara du leen raw incha allah rabbi topp leen.